wa المصلح في يدي وفي داري وثبته بالهادي الوفي asalaamaaleykum wa rahmatullah mbokk yi ñu ngi leen di nuyu di leen siyaare bu baax a baax di leen ndokkeel bu baax a baax ci weeru tedd wi ñu nekk fii ci jumaay Tuubaa ci daayira Muxaddamatul Xidma mi nga xam ne mi ngi fi taxaw diiru weeru wi ay taxawaay yoo xam ne dañ ciy dundal ruu ak du ci dundal yaram ci mbooloo yi nga xam ne dañoo baaxoo ànd ak ñoom liggéey bi te ñu bokk ci dëkk bi di ci liggéey liggéey bu ràññu ko ñu bokk ci waa wilaya ku ne wilaya xam nga diggante wilaya ak daayira Muxaddamatul ma waaye wilaya ak yoonu murit bis ni tey nag ñoom ñu ñëwoon fi tey ji ànd nañu ñun fi ñu fas yéenee ànd ak ñoom ngir. ñu jokk ay kàddu yu soññi ak kàddu yi nan la ñuy gis a ndog yi ngir luñ ci mën a dolli ko ñu mën coo dolli ko mu doon soññ ci ñun ñu ngi leen di nuyu di nuyu mboolem kilifa yi ngeen fa bàyyi ci ñu yàgg jëflante ñoom jëflante bu rafet daanaka yéen buñ tànnee buñ doon invité woon wilaaya mënoon nañoo tànnaat suñu biir yabalaat leen yabalaat ci jataay bi ngir yàgg ànd baa ngi bëgg a yàgg te lépp rafet na te yàlla ak sëriñ bi rek a tax kon ñu ngi leen di ndokkeel bu baax ci weer wi di leen jaajëfal bu baax di leen soññ ci yittewoo gi ngeen yittewoo mbir daayira Moukhaddamatoul Khidma bisimilah asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu yéen bokki daayira muxaddamatul xidma seen mbokk seen mbokki taalib yi ngeen bokkal pas di daayiratu wilaya ittihaadu atbaaxil xaddiim di taawuni wa tamasuku bi dinil xawim fii ci te Serigne Cheikh Diop Kellel jiite comité directeur bi ñoo ñëw fii tey fii ci seen kanam ànd ak bis bu tedd ci weeru mag ci lu sell muy waxtaanu weeru koor waaye ndogu yee ca aju la ca ajo di nuyu baax daayira Muxaddamatul Xidma di jël nuyoo bi di ko teg ci loxol Sëriñ Abdou Lahad Maas mi nga xam ne kenn ku ne xam na ko mu yor wàllu relation extérieure bi waaye mu tegal ñu nuy bi ci loxol sëñ Abdou Lahad soo mu talib mu tegal ñu ko ci loxol sëñ Afiya mi nga xam ne moo jiite liggéey bi waaye di nuyu nag mboole waa daayira Moukhaddamatoul Khidma bi yëpp di leen siyaare ni nga ko waxee buñ ne nuyu ñu waa daayira Moukhaddamatoul Khidma mooy nuyu ñu waa ndax benn lan du ñaar ndax dañoo bokk benn pas-pas bokk benn bëgg-bëgg bokk benn yéene te lépp yàlla rek lal ko waaye sëñ Abdou lii ngeen def de lu murit yëpp waroon na xam ba ànd koog yéen jàppale leen ci ndax waxtaanu weeru koor nit julli takkusaan ba ngoon jot mu ñu ciy waxtaani diine tey bari nañu joog toog ci jataay bi dégg sëñ Abdourahmane kàddu yoo xam ne bu dutoon jataay bi duñ ko dégg wala ci jataay bu mel nii lay doon loolu doy na sëkk jaamu yàlla ndax toog waxtaanee lu baax rek baax na waxuma la ci weeru tedd wi waxuma la barab bu tedd bii waaye lii ngeen def dara gënu ko yéemeeti te ñu yàgg koo ànd ak yéen muy nit woor ba ngoon te xalaat fan la war a naane wala fan la war a mose benn ma ngeen lalal ko lal gu jekk jox ko lépp mu tiim ko sëñ Abdou Lahad loolu liggéeyal yàlla féetewu ko kaw kon yàlla ngeen ci daje ngërëmal yàlla weer wi nag day weer woo xam ne lépp lu ci waay def yàlla nga ciy wër yàlla mi ngi ciy wër yàlla nañ ci daje moom yàlla na suñu borom barkeel liggéey bi yàlla na suñu borom gërëm ñi ci nekk liñ ciy dox ngir di ci wut yàlla ak yonte bi Serigne Touba yàlla ñu koy wut suñ borom mi nga xam ne mooy sàmm te sàmm mu sàmm yàlla nañ sàmm di leen dollee war wan këll rek wilaaya ak mu xaadimatu xidma waaye di ko dollee dëgëral xam ne daal lépp lu ngeen dégg ci luy booleeg luy bennale xitma ak wilaya wilaya ko wax waaye lépp lu ngeen gis ci lu koy safaanale du waxi wilaya du jëfukaay wilaya wilaya daal pas-pasam ak yéeneem mooy daayira buy yàlla ci Touba Mbakke gii mu ànd cee moom ndax Serigne Cheikh Mbakke Gaynde Fatma ko sosoon loolu rek ko taxoon mu sos ko daayira buy liggéeyal yàlla moo tax daanaka barab yu ñu gis yaakaar ne lu togg ak yekk rek ngir lan loolu fekk na liggéeyal yàlla rek lañ cey wër waaye wilaya xitma moom moom li ñuy wax rek mburoog soow la boole naan wala boole tuur kon yàlla yàlla boole dimbale euh, démb la ñu sëñ Cheikh Diop woo wax ñu ko jox ñu ndigal ñu ànd ak bureau exécutif bi ñëpp ñu ànd ak ñoom ñëw am na ci ñoo xam ne dañuy jàppoon dañuy naan julli rek dem moo tax waaye ñii fi teew di sëñ Abdourahmane Dieng mi nga xam ne moo yor commission culturelle bi Serigne Bada Diop mi moo yor communication bi Serigne Dame Loum mi moo yore relation extérieure sëriñ Cheikh Mbacke Sarr mi moo yore finance sëriñ Cheikh Dieng mi administratif ak sëriñ Mbacke si mi social ñooñu dañoo jàpp ne dañuy naan rek dem waaye bureau exécutif bi ñëpp la ma Cheikh na woon ñu ànd ak ñoom ñëw waaye ñoom it ni kenn ku nekk fa nga sa dégg toll sëriñ Cheikh mi dama ko mujj obligé moo ko sëriñ xam ne daal li ngeen bëgg ci bu ngeen woon bokk fanaan ak yéen dañuy ànd fanaan ak yéen ndax ñun noog yéen amul lu ñuy xëccoo amul lu ñuy jeñante yow ñu ngi lay ñaanal ndax gis nañ sa taxawaay gis nañ seenu bëgg yàlla ak sëriñ bi rek a leen ñor kon yàlla ngeen ci daje ngërëmal sëriñ bi ak bëgguk sëriñ bi ñu ngi sant ñëpp di ñëpp salaamaaleykum wa rahmatullah. jërëjëf sëriñ Ibrahima kàddu yi jot na ñu ngi sant yàlla bu baax di ñaan yàlla sunu boroom mi sàmm yàlla ñu boole sàmm ba li ñu yéenee liggéey ci toolu sëriñ Tuubaa bi ñu def ko te yàlla musal ñu ci ndog yi ak pakk-pakk yi si suturaal ñu ci liggéey bi lu mu yaatu yaatu lu mu rëy rëy rek yàlla nañ ci gis sëriñ bi te bañ ci gis suñu bopp. ndax sëriñ bi moom loo teg ci loxoom bàyyi ko ci moom xalaat ko ci jiital ko ca ndam rek ci juddoo kon nag suñu lépp ak suñu yëngutoog suñuy daal ak suñuy xalaat ak suñuy pexe lépp yàlla ci sëriñ bi jiitu digg ci mujj ca ci bàkk Seexul Xadim wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh wal tudxilil musliha fi yadi wa fi daari wa thabbitanhu bil haadi al wafi